star night nag am ngeen gan Paris am na gan yéen ak dama naan daal ak daal ñoo am gan parce que boo leen gisee xale bii sama wet ku ne xam na ko tournée Viviane bi moom moo ko toj treize pays la ñu def treize pays yëpp ñu ngi demandé waat Zula gis ngeen Pullman xale bee ko toj ba ñu paree xale dañ ne mais kii mooy kan Zula la ñu nii borom nag sama bi su koy dégg daf may inspiré lu doy waar Zula borom nag daal di ku nekk ak ci man maa ko samay moo gën a dégloo man li nekk fii dëgg naa maa la raw ko fay yaa gis ngeen ko nekk bëgg naa la maa raw ko fay Zula bëgg na leen maa la raw mënu ko fay pour bëgg na leen maa la raw mënu ko fay Tange bëgg na leen maa la raw mënu ko fay sama gars yi dimanche soirée live la leen Zula defal ak guitare sabar yi tar ko clavier yi dal ko star naay ku fa ñu fekku je pense que doo am place soirée live la ñu wax Soula ci côté bi même Bakaña dama koy dugal ci biir mu ñëw toj star naay Soula waaw wal xale du yomb ndaxte warul yomb donc yàlla dafa def bu loolu amee rek mu nekk sama premier live boo xam ne Soula la waaw ci biir star naay ci biir Paris la France léegi kon nag man maa ngi woo ñëpp ñi nga xamante ne ñu nekk Italie Espagne yomb na terrain rek ngay jël ñëw gis nga bu ko defee ñu bëggee nga delluwaat jeex dañ koy toj di woo ñëpp ñu ñëw. di woo ñëpp waa Mantes waaw waa Champel. say fans lañu. ah macha allah ñëpp say fans lañu. ñoom Adama Ndiaye ñoom Maodo Mbaye ñoom Youssou Dieng ñoom ñëpp. ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp a ngi ci biir. sama gars yi ñëpp na ñëpp ñëw ñu bëgg. Star Night dimanche bii. bëgg Zula bu leen ko kenn nettali. ku lay daaneel Zula. <laughs>